ñu war a dem yóbbu añ ya ah, ci sëñ bi. waaw gars yi ñu ngi nii macha allah indil sëñ bi añam ci buntu otel bi waaw sëriñ Modou Kara Mbodj moo nekk ni fii ci oto bi ak sëñ Cheikh Mbacke di doom ci sëriñ Modou Kara Mbacke noo rey nii waaw gars yaa ngi nii bii mooy beneen ndaabaar gi otel baa ngi nii. ñu war a indil Serigne Modou Mba Serigne Modou Kara Mbacke nooree ni añam ah bégg nañ lool ci gan gi Mbacke balaay sax bëgg nañ lool barke Serigne Bamba bégg nañ lool bégg nañ lool bégg nañ lool waaw ah, di la rek gudd fan Mbacke balaay sax ah, di la ñaanal gudd fan bu wér a wér ah, soldaar yaa ngi nii taxaw war a wàccee añi waaw ñu dem ci jëmm ju tedd gi. waaw ki nga xam ni mooy borom bamba fépp bamba partout bamba everywhere waaw incha allahu rabbi jëf Kara simplicité ngi nii Kara Baye Fall soxnaa bi da ñëw pour ziar sëñ bi ah san mon frère. mooy màngeeg une bonne éloquence wala tafakkuri yi màngeeg une bonne pensée nee ki ko jox man xale mi jaxale ci def sama plume bii plume bii li may bind li may bind nga xam ne moo moo gën a moo gën a puissant seen armée ji ak seen ak seen armée man xalami jaxala fawqa haska waaw te du yëngal ab tànk du yëngal ab loxo waaye dafay jàkkaarloo kaabe gi di wax loolu ñoom ñuy màtt mm-hmm. capitaine ba ñëw ni ko fii fii fi soldat yi jublu ngay jublu dégg na langue bi waaye du ko wax du wax du wax nasaraan xanaa benn yoon ba mu bindee merci te mu bind merci li ko capitaine bi ne ci soldat yi ngay jublu jublu ngay jublu tontu ko mu ñëw bëgg a laal mbagg bëgg a laal mbagg ma fekkoon Modou Kara rek mu taxaw ma ne ko taxawee nii bi ko nee nii ko nacc ak benn loxo bi yëkkati ko benn loxo bi ba laalatul suuf ba laalatul suuf mu wàcce ko tëral ko muy cadd cadd. respect. <laughs> ma ne gisul woon de ni man rek dugg Europe rek <laughs> kii mooy nabi dugg Europe rek ni neng <laughs> na nga def. mu yëkkati ko ak benn loxo bi ba laalatul suuf mu wàcce ko tëral ko muy cadd cadd. aha maaj ba tas bismillah barakallah ana soxna sa léegi nag ñu ñëw ñaan ko ndax mi ngi doon caddi caddi léegi ñu ñëw ñaan ko pour mu delloo ko pour mu delloo ko sago moom dafa doonoon koo xam ni bu ñaanee itam da ko pour la forme rek formalité la rek waaye li bëggee am nii rek la nii rek la mu jóg mu jóg nekkaat nit léegi nag ñu wax ko commandant bi commandant bi di leen ree <laughs> di leen ree nii leen loolu lu mën a nekk koo xamante ne bi ba ko tegoon ci bascule koo xam ne matul cinquante kilos nan lay mën a yëkkatee benn loxoom ci nit eh? commandant bi wedd ko le lendemain ñu ñëwaat woo ko soldat yi maaj mu taxaw fa mu taxaw jublu fa mu jublu woon xeb la ñuy wax li ñuy wax muy wax la mu doon ay nit faatu yow nga ne danga koy wër ci yeneen planète yi ba xam fu mu nekk <laughs> parce que di ko wër ba am fan ko fekk foo xam ne ci jardin boo xam ne mu toog ci njoowaanu wurus mhm. mu toog ci njoowaanu wurus di di joow peut-être laaj ko ni ko lu lay indi fii mu ne ko sopp gi ma la soppoon ah, ah! wër fu nekk ay dimension la ak ay degré du tàggee na ñi dee barsàq ñëpp ñoo bokk fu ñu nekk déedéet barsàq comme suñu àdduna bii dafa am ay endroit yoo xamante ni bi dafa agréable dafa am ay endroit yoo xam ne dafa neex a dëkk am ay endroit yoo xam ne neexutu dëkk ay nit faatu yow nga ne danga koy wër ci yeneen planète yi ba xam fu mu nekk parce que yéen a gis loolu di ko wër ba am fan ko fekk foo xam ne ci jardin boo xam ne mu toog ci njoowaanu wurus mhm. mu toog ci njoowaanu wurus di di joow peut-être que laaj ci ko lu lay indi fii mu ne ko sopp gi ma la soppoon ah naa leen du ko wër fu nekk ay dimension la ak ay degré du tàggee na ñi dee barsàq ñëpp ñooy bokk fu ñu nekk déedéet barsàq comme suñu àdduna bii dafa am ay endroit yoo xamante ni bi dafa agréable dafa am ay endroit yoo xam ne dafa neex a dëkk am ay endroit yoo xam ne neexutu dëkk mënta du ne jéemal nañ ko ko li muy bind mu mañ ko mu bañ ko bind lu ne def nañ xañ ko encre pour mu bañ am encre wala yu demee noonu waaye toujours li muy def moom tey ci seen biir ci seen biir ñoom soldat yi yàlla da ko ci notal ñoo xam ne ñoo xamante ne bii toujours même bu ñu leen waxee ñu jëmale ko lu dul noonu dañuy déedéetal ba am na ci ñoo xam ne dañu leen di déplacer fu di leen affecté fu nekk na ci koo xamante ne bii moom toujours da koy jéem a toppatoo di xool yu mu bëgg ak yu demee noonu bi ñu ko xamee ñu affect ñu am fi ñu ko affecté ba ñu ko affecté mu bind ku tedd ki lettre wan ko ne ko moom daa nekkatul foofu moo tax mu gëj koo gis bind ku tedd ki lettre waaw di yeesal ak cofeelam ak yu demee noonu ba benn bis ku tedd ki laajte ko ñu ne ko moom faatu na dafa mujj faatu fekk commandant bi ni leen subaa moom mooy ñëwal boppam ba xam li ñuy wax dëgg la am bi commandant bi ñëwee xam ne li ñuy wax dëgg la mu ñëw ne ko fi soldaar yi jublu ngay jublu wuyu ko moom it bi mu ne jëyi loxoom mu ne ko nacc def ko ni mu defoon capitaine bi ak benn loxo bi yëkkati ko ba laalatul mu wàcc ko tëral ko muy saw muy cadd cadd yi saw ñu xam ni kon mu doon tëggum ndënd ak sémmiñ te douze yële fukk ñaar yi mu dëkkaloon quartier bi ñu mu dëkkaloon section boobu ñoo ko ko ñaanoon pour mu solidarité ñoom ci maa jéey ci maaj <laughs> lañ ci jubloon fu nekk jaar nañ ci lu ñuy jële bakkan lu nekk jaar nañ jaar moom waaye du yomb pour nga comprendre bu la dimbalu pour nga comprendre ndax nee na yàlla ci boppam moom la gën a bëgg moom moom ku tedd nee na yàlla ci boppam moom la gën a bëgg ci yonent bi ndax yéen a ngi dégg li ma wax xam nga moom xaar moo tudde boppam xaadima rasul xaadima rasul boo ko conjugué daf ko xadim mooy celui qui travaille éternellement mm-hmm. qui travaille toujours jour mooy xadim aw alxaadimu mooy le travailleur moom miy œuvre pour yonent bi nee na yàlla la gën a bëgg ci yonent bi xam ah, ban yàlla lay wax moom la gën a bëgg ci yonent bi mais itam yonent bi yonent bi maanaam moom moo gënal moom moo gënal yonent bi jëmmi boppam laa dé laa dégg ngeen loolu du yomb pour nga comprendre bu la dimbalu pour nga comprendre ndax nee na yàlla ci boppam moom la gën a bëgg moom moom ku tedd nee na yàlla ci boppam moom la gën a bëgg ci yonent bi ndax yéen a ngi dégg li ma wax xam nga moom xaal moo tudd boppam xaadimu rasul xaadimu rasul boo ko conjugué daf ko xaddim mooy celui qui travaille éternellement qui travaille toujours jour après jour mooy xaddim al xaadimu mooy le travailleur moom miy œuvrer pour yonent bi nee na yàlla moom la gën a bëgg ci yonent bi ah ban yàlla lay wax yàlla moom la gën a bëgg ci yonent bi mais itam yonent bi yonent bi maanaam moom moo gënal moom moo gënal yonent bi jëmmi boppam <laughs> ndax de ndax de ngeen ak al baatin mm-hmm. ak wa huwa fi samaa'i ilahun wa fil ardi ilahun mm-hmm. yàlla la ca kaw yàlla la ci suuf te bii nag bu bii feeñ mais bi feeñ kana mm-hmm. ak fu mu feeñ hmm? yàlla la ci kaw yàlla la ci suuf te walillahi l asmaul husna fad'uhu biha Dieu a des très beaux de très beaux noms woo leen ko ci ci turam yooyu mu ne quatre-vingt-dix-neuf yi rek la ñu jox centième bi centième bi ci lay defale créature yi li mu leen di defal moom yàlla wax na loolu man képp ngeen dégg ma jóg ni mooy almoti yi mooy centième ba man ngeen dégg ma wax ko dégg leen ko feneen almoti yi mooy le donateur daaru almoti yi mooy almu'ti du donateur mais daaru almu'ti boobu ci Ibrahima mi ma leen doon wax ni leen renaissance la dafa dellu si ku tedd ki moo ko yebal foofu ne ko boo jógee Mbàkke Kajoor ba egg foofu tegtal ko barab bi ba jullee si juróom benn yi rakkay yor yoor ba noppi foofa ngay sanc foofu laa la sanc loo ab dëkk tudde naa ko daaru almu'ti ndax dégg ngeen yonent yàlla Ibrahima moom leen waxoon ni moom mooy moom moom mooy maam Thierno Ibrahima xam nga loolu laa leen wax léegi nag maam Thierno bii ma leen di wax suñu borom juróom ñeen fukki turi yàlla turu yàlla turi boppam yi ak juróom-ñeent yi mu jox yonent bi alayhi salaatu wasalaam te boo dem ca centième ba man maa ne centième boobu mooy almooti te ba ma koy wax gisagu ko woon xasida bi ku tedd ki bind ba def ca centième ba may dox di dox bind def santi chantier bi muy almonti la <laughs> donate bismillah bismillah na nga def na nga def ba def na tàmbali ceeb ci loolu la nekkoon ma ni ci loolu la nekkoon hmm? waaw waaw barakallah aleykum salaam wa rahmatulah ma ngi noonu ñu foofu bismillah diggee su fekkee jox na ma ko man jox naa ko ko tedd te adduna de seen moom amu ci droit moom kay xanaa maa noo amatul rek waaye nee na lii nee na laa jaru ko ci yàlla daal moo ne boo jullee man xamila saalihan fali nafsihi hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan yooyu yëpp ma xam ko ma jàng waaye li ma gën a doy man kii ma doy yëfa ma ma doy Hmm? moom kee ma doy yëfu hmm? Hmm? moom may defal li may defal li ma wan li may won ma xam parcours bi ma def xam fi ma jaar gis ni may protéger ci lu nekk ba may xamee di am fukki at a ñaar ba fi ma toll nii xam fi ma jaar xam ni man fi ma jaar kenn jaaru fa xam ne li ma def kenn defu ma xamal loolu sama bopp mu féete ma fépp mu féete ma fépp di ma wan li may won su ma ko waxee jubluwuma ci wax cant ci cant laa ko teg quatre-vingt-six ak léegi mu jox ma cent trente-six moo Modou Kara ngi jox ma benn léegi fi su ma demoon su ma ko joxee mu doon cent trente-sept waaye nag joxe ma ko <laughs> waaw damaa bëgg Modou xam ne rek doonul lu ma joxe damaa wax rek déet ba ma njëkkoon a jox joxe naa korse ba joxe woon naa waaw moo tax yow faaw ku tedd ki woon la mbir <laughs> dëgg la sama turandoo nga jox nga ma Porsche ma joxe ko euh, bii tey ma ñëw tudd xale bi euh, tuddee ko Aram Mbàkke Mbodj mu am sa tur yaay am sa turu baay waaw man yooyu laay def am naa ñeenti doom yoo xam ne ñëpp mamim lañ tudd ñeenti doom yu jigéen yoo xam ne ku ci nekk di ko ñagee leerug yonent bi kiiraay par kiiraay waaw na ñëw maam am maam Fatou foofu lay toog waa toogal foofu di ko kiiraay par kiiraay léegi nag fukki leeru yàlla ak ñaar yoo xam ne mosu koo utiliser mu ñage ko leeru yonent bi benn ñaar quatre-vingt-dix-neuf ca stade Demba Diop deux heures du matin mën naa waxoon ni leer ga sosoon ci moom rëkk rëkk rëkk rëkk bi suñu borom nammee sowee julli ji naree sowee ñu nara sowee booba leer googa la jël moo war a ñëw fii war fee indi jëmmi doomu aadama war fee jëm indi jëmmi nit des femmes pour tous les mm. mooy kañee wax mari mm. yaay Isa ibn Maryam mm. ñu delloosu ko mu ñëw fii tudd Maryama ci jullit yi Marie la tudd lañ ko daan wooye fële ci chrétien mais fii Maryama Maryama la tudd Maryama moomu kii nekkoon pratiquante boo xam ne ba ñu koy wooyee la voisine de Dieu bu dund fi fanweeri at ak ñett ya doom jë dundoon na Isa ibn Maryam ca démb maa fi waxoon loolu quatre-vingt-dix-neuf ndax ku ko waxaat kon kay man damaa comprendre waaw kon ki tax ma comprendre moom la sopp pour ma comprendre bu ko neexoon keneen comprendre wal abdaanu lin xaadatil biidraanu wa suudaanu ñu weex ñi dafa ñoo bokk ci sama mission sur le plan culturel fi ma leen di jaar par la mélodie la leen di jaar ay chanson tubaab yi ñi ci nar a sooyee mënuñu ma rëcc waaw ndaxte bii daan jooju sax joxuma ko tubaab yi ndax al bii daanu firiwul tubaab firiwul nasaraan al bii daanu mooy ñu weex ñu mais jàpp naa ni bu ne ñu weex ñi naar yi d'abord ndax foofu laa gis di ma te mosuma gis journaliste moom li ma xam ci journaliste journaliste ñaari day góoxe leex mbaa muy contesté mm-hmm. mbaa muy kii mbaa mu lay fexee jóomloo loolu laa xamal journaliste waaye journaliste buy tàccu ab leader mm-hmm. ci naar yi laa ko gisee mm-hmm. te benn wax ku tedd ki benn vers bu mu wax kepp moo leen tàcculoo xam nga loolu leer tax na nag waaye fii toll nii li ma leen wax fii nii ci Bruxelles gii nga xam ni mbokku taal bi bi sax nee na ma naa leen ñamal ci fukki tur yee ñaar tuuti waaye bi ma leen ci tàmbali loon rek muy bàmba ji baa mim ba muy bàmba ji wax naa li muy wax naa leen li muy symboliser mooy juróom-ñetti malayka yi tee aras yoo xam ne ñi nga xamante ni bii ku tedd ki ne la ku xam seeni tur doo dee te wanuñu la sa kër ca àjjana waaw xafizuha laysa yamutu abada xata yara wastal jinaani maqa ada waxi ku tedd ki la waaye ku tedd ki bu la waxee loolu ba noppi man damay ñëw wax la ni la bu fekkente ni jëfe Sëriñ Tuubaa sax na ci sa xol doo dee te wanuñu la si benn liaison boo xamante ne bii bu dox sama diggante moom ci cofeel boo xamante ne bii fi mu toll nii moo tax mu mel nii sama révolution dafay dafay dama koy tardé déedéet tardé wul tardé wul dama koy façonné ndax li ku li shay in ajal chaque chose en son temps waaw te fi mu toll ci di settantal ci di settantal dégg temps yee passé ma wax ni suma ma pouvoir bu ñoroon Sénégal su ma pouvoir bi ñoroon su ma ñoroon <laughs> pour pouvoir bi ñëw ci lu mouridisme turum tàcc lay doon te xat du dem ndax maa nga fépp maa nga ci gendarme yëpp maa nga ci policier yëpp maa nga ci pompier yëpp maa nga fépp biñu toll boo demee ci rébellion ba boo demee boo demee boo demee ca Macky ba ay signe la yoo xamante ne bi yu doy wax euh, ni Serigne Touba mi maa ko ci Sénégal su ngeen déggee may wax loolu waxin la du ko man ma dem doon président de la république du Sénégal déedéet du loolu waxee ma foofu réew mi maa ko ci day mooy dafa am projet de société boo xam ne moo mën a développer réew ma te man la désigner waaw pour ma leen di reeteet waaw système la ma leen di reeteet xam nga reeteet moom boo ko déggee reeteet maanaam day nekk ci kaw garab naan jaan jaa nga ne serpent serpent waaw bañ ñëw rey serpent ay retraite waaw wax ni réew mi maa ko ci doy wax ni ya fay xew nañ fexe ba mu yam ci Macky nañ fay wax ni nañ fexe ba mu yam ci Macky li toll Macky laa xamul nu ma koy def rek mais sama révolution dafa jot nga gis naar bu ma jox avion juróom-ñaari weer nga gis naar parce que du du caagee na moo ma koy jox naar ba waaye ku tedd kee ma koy jox moo koy sant naa ko du ko sañ a bañ mi ngi mel ni yow mi rek sa oto bi maanaam du yow yaa may jox ku tedd kee may jox day jaar na ci yow ngay sama turandoo leneen loo ma joxe du yow yaa ma jox ku tedd kee may jox mais ku mu sant ku ma ko jaarale ci yow doo sañ a bañ Serigne Saliou bi may defal ñaar fukki xar yaak benn ndékki du moom ku tedd kee ku ko ak bu ma ñëwee mu taxawal ma ñu indi beneen tapis lal ko Serigne Saliou du ma ñëw mukk la ilaha illallah mooy ñaade jëkk jëf mooy jërëjëfe Serigne Touba bu ne jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rasoul mooy la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah 24 la mooy 24 heures yi les 12 heures de la nuit <coughs> et les 12 de la journée <laughs> waaw xam kon loolu mooy bam baji bam baji danañ ko wooye it Modou Mbacke Modou Mbacke yi cinq lettres la mooy xam sa serwaat mooy alxayri mooy mooy symboliser waxtu julli yu juróom mooy symboliser le bien ou le bon wax naa fi léegi ci nuuru dare mi mu ne yàlla wa tajzee anil anbiya wa rusula xayran yu diimu sukaran wa asala nekk ni ko les envoyés vous vos envoyé la ko ñi ngay yabal ak ñi ngay yabalul ñëpp ko ci bëgg a récompenser ñëwal jël ci man bien boo xam ne day sucré te day miellé day mm-hmm. sab sucré te day sablé fawxa salatin xubbelat wasaw waaw defal li may bind samay bind mm-hmm. def ko mu féete kaw julli bu ñu nangu ak koor bu ñu nangu mm-hmm. ci nuuru daal yi hmm? waxoon naa fi ci affaire yu julli naan mënumaa julli dégg naa am ñu koy interpréter neneen ñu koy interpréter neneen laa bëggoon bu ma demee Sénégal ñoom ñu wan ma nu ñu mën a jullee ndax du caagee ne rek yaa ngi rukkoo yaa ngi sujjóot yaa ngi biral yaa ngi yalu rek mën ngaa julli dégg man nga moom ca biir la man nga baatin waaw alayhi salaatu wasalaam bi mu ne saaba yi ku ci mën a julli dalay neexal giléem parce que pour pour nga man ko dangaa war a julli ba seen man te sa xel génnul demul fenn demul ci foo war a joxe dépense wala loo war a gagné suba ah diggee su fekkee jox na ma ko man jox naa ko ko tedd te addiya de seen moom amu ci droit ah moom kay xanaa maanoo amatul rek waaye nee na lii laa jaru ko ci yàlla daal moo ne boo jullee man xamila saalihan fali nafsihi mm-hmm. mm-hmm. hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan mm-hmm. yooyu yëpp ma xam ko ma jàng waaye li ma gën a doy man kii ma doy yëfa ma ma doy hmm? moom kii ma doy yëfa ma ma doy hmm? moom moo may defal li may defal li ma won li may won ma xam parcours bi ma def xam fi ma jaar gis ni may protéger ci lu nekk hmm? ba may xàmmee di am fukki at ak ñaar ba fii ma toll nii xam fi ma jaar xam ne man fi ma jaar kenn jaaru fa xam ne li ma def kenn defu ma xamal loolu sama bopp mu féete ma fépp mu féete ma fépp di ma wan li may won su ma ko waxee ma ci wax cant ci cant laa ko teg quatre-vingt-six ak léegi mu jox ma cent trente-six voitures Modou Kara ngi jox ma benn léegi fi mu toll su ma demoon su ma ko joxee mu doon cent trente sept waaye nag joxe wu ma ko waaw damaa bëgg Modou xam ne rek doonul lu ma joxe damaa ba ma njëkkoon a jox joxe naa force ba joxe woon naa waaw moo tax yow faaw ki woon la mbir sama turandoo nga jox nga ma Porsche ma joxe ko euh, bii tey ma ñëw tudd xale bi euh, tuddee ko Aram Mbacke Mbodj mu am sa turu yaay am sa turu baay waaw man yooyu laay def am naa ñeenti doom yoo xam ne ñëpp mamim lañ tudd ñeenti doom yu jigéen yoo xam ne ku ci nekk mariama yaayu Insa nu mariama mariama maam jaara buso mariama sëy yaayu Seydina Ousmane am naa ñeenti doom yu jigéen yoo xam ne ku ci nekk mamim lañ lay woy ku ci nekk loolu samay façon ci boppam moo raar nit ki nag waaye façon raar